bàyyi ci xel mhm. moo tax may remercier président bu fekkee ni ci réforme bi loolu bàyyi na ci xel mhm. c'est important c'est important alors euh, bu ñu gënee xuus ba ci waxtaan bi ba jaxate gis nañ ni arrêté nañ ko euh, mais coow si lu mu jur mooy euh, li nga xamante ni moom mooy Guy Marius wax na ci nee na arrestation baa jaxa jaxal bi nee na délit diffamation dañ ko war a génnee ci code pénal bi te ba jaxate ñëpp xam nañ dafa te xaw traité Ousmane Sonko de borom ñaari touri yi te vidéo bi était viral en fait ñëpp gis nañ ko est-ce que tu jàpp jàpp nga ne bu ñu bàyyee diffamé diffamé diffamé ku diffamé ñu bàyyi la du ñu mujj nekk ci anarchie. waaw mais xam nga loo gis rek da nga ko war a da ko war a da ko war a organiser. Mhm. moo tax c'est vrai yàkkamti woon naa les assises euh, sur la justice. mais aussi euh, war nañoo def les assises sur la presse quand parce que xam nga li ngay wax rek dénominateur commun bi mooy euh, moyen de communication yi. Mhm. les gens ont leur télévision. Mmh. jaar fii ñu war a jaaree ba am leur papier caissier. Mmh. am droit di wax. muuru ci liberté de la presse. ba mën a wax loo xam ne si que leneen mën leen ci fekk. Mmh. donc soo leen jàppee da ngay obligé laal la presse moo tax il fallait encadrer la presse de telle sorte que. nit ki buy wax dara sax parfois bu amul kanaal bu mu ko waxee. day tax sax mu génn ci day tax sax du ko def. parce que euh, que ce soit Bah Diakhaté ak ku mu mënti doon. les gens parfois dañuy dañuy dañuy dànk fanaanan quoi. donc dañuy am support boo xam ne c'est que boo leen jàppee fa la ñëpp defee noonu parce que Bah Diakhaté les gens directeur de publication la c'est pas. ci ci télé boppam bu mu def quoi. donc kooku prérogative yi ngay jox par chef da koy def. Mm-hmm. maintenant ko mm-hmm. euh, le vin est tiré ce qui reste de le boire de le boire donc buñ ko defoon bu yàgg je crois que duñ yegg fii léegi nag yegg na foofu li jotam am na ba pare. booy defar nag omelette. il faut nga toji nen. Mhm. il faut am xam dañ koy sëgg. pour ne pas aller en retard. Mhm. sëgg ko teg ko ne tout en faisant des réformes. Mhm. pour que nga xam ni que nit boo liggéey buy wax dara dina ci xool mu. moom bàyyi mais war war nañ nangu ni quand même waruñu bàyyi penc mi ku nekk rek teg sa vidéo taf photo jàmbur. di mooy wax mooy réforme sur la sur la presse. indi réforme sur les formes de communication. indi réforme sur les réseaux sociaux. Euh, nakal am na parce que am na xam ne jàll na ba pare. Uh-huh. nit am na lu naqari lu ko naqari loo xam ni ki ko ko tegoon moo koy jiite par exemple tey. Uh-huh. Uh-huh. nit wax nit su nga ko wax lu ko naqari. te tey yaa koy jiite bëgg a defar. donc ki nga ki nga defoon lu ko naqari moom la ñuy fexe. mu fàttalee. mu fàttali fàttali ñaaw li paase jël li ñu bokk defar pour suba rafet. parce que il faut savoir que suba démb moom li am am na ba pare te du dellusiwaat. léegi nañ éviter li amoon démb ñu bañ ko répété tey. wala buñ ko répété tamit ñu rafetal ko pour suba bu bañ a amati. Mm-hmm. Mm-hmm. donc fii on refuse de répéter et après l'avenir on refuse de de même teg bët ci lu demee noonu. Mm-hmm. de part et d'autre en fait. justement ci ñaar yëpp. parce que bu fekkee da nga nii di waxoon na ma lii man dinaa ko waxaat lu gën a ñaaw. fayam tous les jours. parce que li tax ma ni départ d' mooy xam ñun presse bi dañu doon tuumaal très souvent naan ñu si bëri suñu ma ko sañ wax tëddeewuñu njaaxaan ñaay bëgguñu Ousmane Sonko bëgguñu Diomaye bëgguñu Pastef et cetera ñu gis ni am na benn article bu génn ci nomination bi nga xamante ni moom mooy euh, Moussa Kandé général euh, Moussa Kandé bi nga xam ne dañu ko yóbbu New Delhi ci ambassade bi jële ko ci armee de terre bi mu nekk benn dossier bu sensible te ñëpp xam nañu euh, président président de la république la yoon may mu nga xamante ne mooy militaire nomination boobu déplacement boobu est-ce que jaroon na presse bi di ci dugg bay jàpp naan ni ki nga xamante ni mooy général bi dafa attaqué colonel bi dafa attaqué général bi plutôt dafa attaqué décret président Macky Sall président Diomaye sensibilité dossier boobu noonu mais tu la dit man de tous les dossiers mhm. dossier bi ma ci gën a ragal tu l'as bien dit c'est l'armée mhm. man man moom c'est-à-dire quelqu'un qu'on aurait pu forcer à se à se quelqu'un qu'on aurait pu à être muet. koo xam ne si buy yëngu yëngul ci làmminam day yëngu avec des armes kooku rek moo war a muet. mooy l'armée et c'est pas pour rien qu'on les a la grande muette. donc ñooñu je crois que ni di dugg ci seen biir dafa sensible sensible boo xam ne l'État nag en tant que moo waroon a lancer quelque chose sur la dent de la presse. c'est-à-dire pourquoi. parce que bu coow amee aussi mm. quelle que soit sa sensibilité mm. la presse est habilitée à en parler maintenant am na coow nag fu muy juddu mooy que ni coow yi mën na juddu par exemple ci ay armement ci nangam mm-hmm. la presse jël ses responsabilités mm-hmm. daal ni attends parce que lii kat boo ci jógee kii dañ kumpa mm-hmm. dina xool ba xam ni derrière sa problème leneen na nga ci dugg euh, indi indi lu leen am ci wàllu arme yi demee noonu c'est là où on sensibilité mais wàllu affectation ak yooyu am na nu mu doon demee dans les règles de l'art ba mhm. erreur du am. Mhm. da nga am. justement parce que pourquoi. Mhm. parce que le fait que le général di attaquer ce décret. mais est-ce que bon l'information est-ce que c'est avéré aussi. bon loolu yéen waa presse yéen a ko wax moi je réponds par rapport à la question que tu m'as posée. mais li ma xam mooy xam naa ne c'est devenu viral dans la dans dans la toile. tout le monde en parle. ñu ngi ci xas presse naan waruñu ci woon wax moo tax ma ni la meilleure façon. d'éviter que la presse wax ci c'est d'éviter de leur donner quelque chose sous la dent nit boo dugalee dara ci gémmiñam da koy sàqami mhm. wala mu yàbbi ko mhm. donc problème yi sensible yooyu da ngay moytu doxalin ci doxalin boo xam ne si presse bi dina am lu mu ci wax parce que depuis euh, pour la première fois qu'on nous de ça mais armée mm avec arme mhm. mais dans ce dossier personne n'a n'a entendu parler d'arme mm -hmm. donc li wax ci waxi procédure quoi kii def lii waru ko def fii képp ku ki nekk li nga war a def xam nga ko li nga war xam nga ko. Mm-hmm. boo amee muusu nag bañ a def li nga war a def da am jàmm. Mm-hmm. soo amee nag euh, leneen lu la jàpp ba nga def li nga xam ni waroo ko def aussi. Mm-hmm. problème nga indi. mais justement si coow loolu dafa dem ba undu euh, ñaar euh, ñaari arrestation bon ñaari convocation laa mën a wax suñu ñaari naataango ay directeur de publication journal bii di bii di. tribune la tribune ak journal bii di le quotidien finalement ñoom ñaar ñëpp sax bàyyi ñenee ñi ngi commencé di yuuxu di tiit naan li ñu doon bañal Macky Sall li Macky Sall doon fi def ñii ñu ngi koy def est que foofu la foofu lañu war a gisee en fait ñu gisee ni am na mbir yoo xamante ni xëy na loi loi parce que parce que l'état li mu war a moytu aussi. mooy y a un un nom benn euh, nom bu ñu ci visage état. Mhm. que la presse rek moo koy teg ci visage état si elle est mhm. il faut boo fàttali ko. à chaque fois que la presse est mhm. euh, par l'État. la presse day pare ci waxi état da koy di appeler day utiliser le mot mos. Mhm. maintenant man je viens j'incarne l'état mhm. j'évite qu'on me colle pourquoi je l'évite kee lu tax ñu colle que le mot mos mhm. parce que danañ danañ convoquer des directeurs de publication dafa daan nekk di di dugg foo xam ne si donc gars yi dañuy mer ba léegi nag man si je veux pas qu'on me colle ce mos ah je convoque personne je fais un démenti je te pousse à le publier yow mi defoon loolu. ma équilibré. Mhm. si c'est pas le cas. vous avez une organisation de la presse. Mhm, boo xamee ni que. Mhm. jàpp naa ni fa fa la journaliste bi gën a ragal que gendarmerie. waaw mooy correct. parce que journaliste bi nga yóbbu ko brigade de recherche. mais yaa ngi construire koo xam ne si déjà. nga may sax. Euh, journal bi rek sax mën ko fa dàqee beneen journal jël ko parce que tu lui as déjà donné un nom. tu le rends célèbre déjà. donc loolu man état maa koy moytu. Mhm. parce que je veux pas que ñu coller ma le nom monstre. bi la presse bi utilisé. donc bu amoon noonu. doo dégg ku ne lan ragaloon nangam ak nangam. donc parfois il faut éviter état bi gañewu ci dara en fait. non non non non non gañewu dara. Mhm. parce qu'il faut éviter de tomber dans les pièges de la preuve bu fekkee ni leur intention c'est de de l'emprisonner. mais est-ce que du pour pour artu. surtout wan ñii nii bon prochaine fois képp mais fàttaliku tamit ñoom neen la prochaine fois lii la ñuy waxaat. kon kañ lay jeex. parce que la solidarité bi am dans le milieu journalistique mooy que ni tey bi loolu amee tous les journaux dañ cee wax. bi loolu amee tout dans tous les plateaux de télé les gens s'en parlent. ñooñu yow mi naan leen la prochaine fois nii laay doxale ñoom it wan na leen la la prochaine fois nii lay doxale kon kañ lay jeex. ñenn ñu jàpp nii bon de fusil d'épaule mm-hmm. xool naka nga koy defee et puis mm-hmm. euh, nekk ci yenn priorité ñu génn ci lii quoi mm-hmm. euh, bon Madiambal Diagne gis nañ mi ngi commencé di di génn dafay révélation am ñu jàpp ni dafa am ñu jóg uniquement pour déstabiliser dëkk bi euh, jaarale ko ci presse bi jaarale ko la personne Madiambal Diagne parce que ñëpp gis nañ attitude am ci ni mu doon faral di accuser Ousmane Sonko ni rebelle la rebelle ñoo nekk si ginnaawam ba ba sax ñu ni Ousmane Sonko dafa jéppi ki nga xamante ni moom mooy colonel Kandé Ousmane Sonko faluwul folliwul lu tax dugal boobu es ce du duñ ko jàppee harcèlement euh, à la personne de Sonko. koy topp di dal si kawam ba mu falu nga continuer di topp di dal si kawam suñ la jàppee wala ñu convoqué la aussi est-ce nga yuuxu. je <coughs> crois que je crois que la personne vraiment mm-hmm. à. à répondre si question à répondre si question boobu. Mm-hmm. Euh, Sonko lay doon quand mais mm-hmm. pour sama jàngatu kese rek mooy. Euh, moom na éviter aussi. ñu koy mettre dans toutes les sauces. cest à que les gens pensent que lii moo ci nekk gis nga euh, une personne lambda mhm. mën nay bañ di tontu dans à toutes les questions mhm. parce que mën na ni mënuma dëkk ci tontu mhm. mais l'état c'est pas une personne l'état c'est une entité boo xam ne si kuñ ci tuumaal tu es obligé de tontu à n'importe quel moment donc buñ la loo xam ne defoo ko en tant que personnalité politique incarnant l'état génnal weddi ko génnal génn ci génnal dindi ko c'est important mais qu'on te qu'on te mette dans toutes les sauces. nga mhm. nga yor jikkoy mburu. Mhm. sauce bu jóg ñu boole la ci aussi il mhm. faut. Euh, personne yëpp moytu quoi kooku ça c'est valable pour tout le monde que ce soit une personne dans l'opposition une personne dans le pouvoir. Euh, bon voilà ñu continuer waxtaan bi daanaka lu ñu desee ci waxtaan bi bareetul ñu ngi may wax presque daanaka sept minutes moo ñuy desee mais Gallo euh, en tout cas li ma mën a li ñu li ma la mën a laaj un peu ci dëkk bi ni muy doxee nii. Euh, gis nañ ni ñi nga xamante ni mooy côté Kédougou ñu nañu war a négocier waat contrat yi ci par rapport lañ fa fekk ci yàqute ci état bi lu mu ci perte ci xaalis ci lu mu waroon am presque benn deux cent milliards mu dem mu dem am ci benn un milliard et cetera. sur les mines waaye mhm. loolu ban gis nga ci am réforme yi Birame Souleye bëgg a jël naka nga ko gisee. non mais loolu loolu c'est c'est plus que positif bi dañ koy saluer c'est-à-dire boo defee les états des lieux. et puis c' est pas dans les mines tout simplement mhm. pour wane ni que loolu l' état est dans son rôle. Mhm. bu fekkee ni da nga ñëw def les états de lieux d'une société ou bien domaine bu mu mënti nekk. Mhm. soo gisee ni li ci daan xew. c' était pas dans l' intérêt du Sénégal. mais on attend à ce que nga dindi ko. loolu c' est pas une prouesse du bravoure. c' de la normalité. loolu moo war a am moo normal. donc soo ñëwee dans les mines. mais nag ah, vraiment avec une euh, gëstu bu approfondi nag quand parce que li may bañ. mooy nga gëmloo Sénégalais yi. Mhm. ne lii leen fi wax. te ñu ciy jógee. Mhm. nga dem ba ci digg bi Sénégalais gi suñ jóge na ci. kooku mhm. dafay rendre ridicule un pouvoir. donc décision booy jël rek. concernant à ça il faut. nga xool ba xam ne exactement la nga fa fekk mooy dëgg wala lan la daan wax mooy dëgg c'est mhm. important. Mhm. pour ne pas trop aller en besogne. Mhm. il faut que euh, que les décisions soient réfléchies. mbay mi gis nañ semence bi wàññi nañ ko distribution bi aussi semence bi gis nañ dañu jël gendarme yi policiers yi ñu taxaw. en tant que en tant que doom baykat laa mënoon tuddee. absolument baykat doom doom baykat ndax nga gisee wàññi bi ci semence bi. ak non kontaan naa ci même bu fekkee maa ngi dégg euh, le grand journaliste Adama Gaye. di wax ni c'est pas l'état moo ko wàññi. Mhm. mais man loolu dama koy féetale ci ci ci euh, bénéfice état pourquoi. Mhm. parce que bu wolof ne tombé moo waral ay gaaf. ak fu wàññi bi mën a jógee. bu fekkee mhm. dafa tombé avec le euh, la gouvernance du président Diomaye. mais ci ci ci binaam la. ci moom la parce que bu fekkoon ni moment yi ñuy wàññi xaw ma ban. organisation la Adama koy wax ni moo ko wàññi. bu fi fekkoon Macky Sall. kon xëj na élection yi passé du demee noonu. parce que les yi dinañ kontaan kontaan boo xam ne dañ naan Macky Sall wàññi na. Euh, dund wàññi wàññi na engrais bi. Mhm. wàññi na kii yokk euh, defaraat na semence yi quoi mais comme si euh, ci nguuru président Diomaye la nekk kooku vraiment nan ko ko nan ko ko bàyyil xam ni wërsëgam la donc loolu rek la mën a wax Diomaye wàññi na kii engrais bi. Mhm. Mhm. wàññi na engrais bi lan mooy li gën a jàmp lu PDS ban étape la jëm PDS lan la jëm ci ay réforme wala organisation. parce que élection législative yi si des bari na bariwul. donc lan la ban taxawaay la. PDS waaw mais activité bi gën a saillante au niveau du PDS mooy lii d' moo jur suñu premier point li nga doon wax. li mu indi frustration yi ak sunu yaay Waré saar activité bi gën a saillante mooy ñu ngi nekk ci.